soir d'info xam ngeen ko heure bi su jotee gannaaw le journal de 20 heures euh, dinañ waxtaanee euh, ja euh, écrivain bu mag boobu di doomu Sénégal di Boubacar Boris Diop ndax nag ay kàngam yu bag dañoo bàyyeekoo fu ne di waxtaanee li nga xam ni liggéey na ko ci wàllu littérature mu yembook nag weer wi nga xamante ni si lañ doon célébrer fanweeri at ak juróom-ñaar bi Cheikh Anta Diop génnee àdduna ak tey te moom Boubacar Boris Diop. di euh, disciple bu Cheikh Anta lan mooy taxawaayu intellectuel yi euh, fii Afrique tollu rawatina àdduna bi euh, dinañ ci wax dinañ ko waxtaanee gannaaw le journal de 20 heures léegi nag dañuy dalal ci première partie bi xam ngeen ko président de la République dafa jël 50 milliards génne ko lépp nag ngir wàññi ceeb bi dëwlin bi. ak euh, suukar bu mokk bi euh, ndax euh, loolu rek doy na moo tax ñu woo fii ki nga xamante ni mooy Moustapha Tall moom nag képp kuy importateur denrée de base moom moo la jiite ñu ngi lay nuyu Tall di la dalal jàmm ci plateau Soir d'Info. maa ngi lay fay Binta di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñooñu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi suivre sa émission bu solo bi di nuyu borom kër gi di nuyu. Euh, ñëpp rek. Mhm. ci kaw ba ci suuf gannaaw loolu it may nuyu euh, askanu Sénégal yëpp. Mhm. di tàmbalee ci xalif généraux yi. Mhm. ba ci président de la République di nuyu ñëpp. ku ci ne ci suuf ak sa sant. di leen jox ñoom seen seen wàccuwaay. di jégalu nag ñëpp. ci lépp loo xam ni wax nañ ko fi rek ci lu noonu nañ ma ko jégal xam ni bëgg mu baax rek a tax ah, dëgg la waaw waaye du leneen uh-huh. mm-hmm. waaye Sénégal tamit am tiis boo xamante ne dafa dal ci kawam sànq mm-hmm. uh, ki nga xam ne mooy El Hadj si uh, Sy dafa génn àdduna mm-hmm. uh, Malick Sy Souris nag ku ne xam na ne 2002 moom moo yóbbu woon gaynde ya ca Mali mbégte bi ñu njëkk am ci Sénégal ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations moom Malick Sy Souris nekkoon président fédération de football bu Sénégal moom moo ñu ko may ak ñamu àndaloon yoon nag yàlla may na ko mu fekkee euh, Coupe d'Afrique bu njëkk bi nga xam ni euh, Sénégal am na ko xam naa ne laata muy dem xolom sedd na ñu koy ñaanal itam Euh, foofu muy nar a dem tëddi euh, mu am fa xol bu sedd guy yàlla bu ko cat jiitu euh, ci bàmmeelam ñu koy ñaanal Sénégal yëpp ñu di leen leen koy jaal mm. di ko jaal président de la République naka noonu fi nga njabootam ndax nag Malick Sy Souris doomu Sénégal la te ñëpp ko nawoon donc ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jaalewaat ñëpp rek di ko jaale suñu bopp di di ko ñaanal yàlla mu xippee ci àjjanay firdaws waaw bi tamit maa ngi ñaane jaale Sénégal yëpp ku màgg kooku nga xam ni moo fi jóge di Alaaji Malick Sy Souris nga xam ni ah comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. am na taxawaay bu mu amoon ci réew mi. jógee kon directeur poste nekk jóge fa yor fédération. ba 2002 mu yóbbu xale yi aussi ñu taxaw taxawaay bu am solo bi ñu taxaw ci mm-hmm. de génération boobu. loolu sax tey xaj na moo indi tey ñu mën a am Coupe d'Afrique. bi ñu gagné nii donc liggéeyam la kon nag. ah ñu ngi koy jàlle Sénégal yëpp di ko jàlle njabootam di ko ñaanal rek yàlla xare ko àjjana fii daw si amiin Pape ah, hmm. euh, ñu maa ngi koy wax sànq président dafa jël dogal wàññi euh, ceeb bi hmm. yenn si ceeb yenn ci ci ci xeetu ceeb bi yi nga xamante ni yow yaa ma ko gën a xam le riz euh, non ordinaire defe naa <laughs> ak ah, waaw ordinaire ak dëwlin bi uh-huh. ak mais du yëpp waaw yu ci bari dañ koy importer. Mhm. ak itam suukar bu mokk bi. Mhm. déjà yow importateur nga ci mhm. wàllu denrée de base. Euh, sa euh, lecture bu njëkk ci dogal bi président jël dugal cinquante milliards pour dàmpee ñi nga xam ne ñoo yëngu ci ripat yi. waaw di ko rafet lu rek ndax aussi comme ni ñu ko waxee ah, lu am solo la ndax réew mi nit ñi xaw nañoo am xaw nañu sonn ci wàllu augmentation prix yi ndax fan yi prix yi ah, yéeg na yéegu métti métti ah te it xam na nag néew na euh, par exemple ñi nga xam ne seen col loxo jotul seen gannaaw. métti na si ñoom. moo te ñooñu nag moom la ñooñu war la la la war a njëkk dimbali en priorité. muy li nga xam ni ceeb bu daan ceeb bu non parfumé bi nga xam ni 80 pour cent population moom la ñuy consommé. teg ci nag diwlin bi nga xam ni aussi moom la ñooñu di consommé ak suukar bi ñooñu di consommé. ki nga xam ni nag am nga moyen. jënd riz parfumé. jënd riz entier wala jënd huile euh, d'olive wala indi huile tournesol wala huile boo xam ni. bu cher la ak benn suukar en morceau bu cher ñoo peut ñooñu la ñu sóoraalewul parce que dañuy ku am moyen kenn ku jàppale ki ñu war a njëkk a jàppale rek mooy ki nga xam ni loxoom jotul gannaawam te mu war a jënd euh, lu mu dundee loolu moo tax ñu def ko mu defee ko noonu lu ñu rafetlu la cinquante milliards xaalis la mais bërki démb rek defoon na la lu mel noonu ci bi ñuy def en au mois d'août euh, wàññi woon na lu toll ak quarante quelques milliards yooyu yëpp baax waaye man li ma bëggoon mu def ko mm-hmm. mooy comme denrée la yoo xam ni bu yéegee nit ñi nga néew dale sonn. dañ ko war a gérer. Mhm. te buñ ko gérer comme nañ koy waxoon. naka lañ koy gérer. ko mooy ñu organiser filière bi. Mhm. lu mel ni ceeb. Mhm. amoon na fi en 2003. waaw 2008 plutôt. crise booba avant crise bi man daje woon na ak Abdoulaye Wade ni ko boo gérer wu libéralisation bi nga xam noonu lay libéraliser denrée de première nécessité. surtout ceeb. danañ mas am problème boo xam ne duñ xam fu ñu koy régler. ba mu woon dana ko def waaye mujj ko def. crise bi ñëw 2008. ah ñu gérer ko bi ma wooyee mu ne ma lan mooy solution ma ne ko gérer situation bi. parce que mhm. euh, solution moom mënatul am. Mhm. parce que affaire baa ngi nii wàññi prix wàññi euh, suspendre taxe def mhm. subvention. ñu def loolu. mu coûté ñu cent cinquante milliards. cinquante milliards à l' état du Sénégal voilà di lakk noonu dem cent milliards opérateur parce que opération bi ni ñu ko defee baaxul. c' était booy def opération aussi da am noo koy defee. da ngay wàññi dafa am noo koy defee booy subvention dafa xam ne maa ne woon ci jiite ko noonu. sama 433 milliards ci 433 millions yoo xam ni. ci subvention bi lañ ma ko na fay 2008 fayuñu ko ba 2013 Macky ma ko soog a fay. 8 mhm. 5 yoo xam ni. Mhm. sama xaalis mu ngi tëdd foofu. Mhm. xam nga loolu aussi. mënoon naa ni ah comme man maa jàpp maa ci jàpp. waroon nañ ma njëkk waroon nañ waroon quand même. traité nañ noonu noonu. waaye comme man dama amoon problème ak moom xaj na moo tax mu doxee noonu. waaye nag yàlla def na li muy def tey Macky Sall ñëw. bi Macky Sall ñëwee. ma ma yaakaaroon ni bu ñëwee. Mhm. comme demande sociale bi dañ ko doon wax ni ceeb bi cher na ceeb bi na. Mhm. bu ñëwee li muy njëkk def mooy régler problème boobu. bi mu ñëwee aussi. Mhm. teg premier conseil interministériel bi interministériel bi ñu organisé woon Abdoul Mbaye jiite ko. wàññi woon nañu la ñu man ci wàllu suukar bi ak ceeb beeg diwlin bi. waaye dañoo wàññi rek. après. bu loola jàllee affaire dafay ñëwaat. absolument affaire bi boo bëggee mu bañ a ñëwaat da nga koy gérer. et toujours maanaam mun teg mécanisme boo xam da lay permettre chaque fois ngay sur surveiller affaire bi comme su di lait sur le feu ak acteurs yi nga xam ne ñii nga ko jox boo di rajeek ñoom ñu lay wax di la jox situation wax la li xew aussi nga am ay objectif mais su ma la déggee dafa mel ni duñ euh, leen déglu yéen acteurs yi nga xam ne yéen ay nekk yéen ay jënd di indi ci réew mi. non bu ñu dégloo rek crise a am. Mhm. maanaam lépp affaire bi demee ne nii ñu wootee prix yi nangam nangam nu ñuy def ñu ne ah yéen lan ngeen mën a def ñun ñun kat li ñuy indi coût de revient la plus droit de douane ñu dindi droit de douane comme droit de douane la ñu am droit de douane nag lu mel ni ceeb 12 pour cent la cent la. 60 pour cent la. parce que dañu ko dañuy dañuy protéger industrie bi. Mhm. pour que mu am autosuffisance. Mhm. loolu moo tax mu nekk 60 pour cent. Mhm. sucre bi ne nañ 25 francs lañ ci dindi. waaw 25 francs yooyu nag. je pense que par rapport ak sucre li prime. bon mënoon nañoo. xool droit yi nañu wàññee ceeb bi. waxu mu ñu suspendre 60 pour cent yi. Mhm. mais ñu xaaj ko wala ñu def ci loo xam ni. nit ñi dañ ci yëg seen bopp. Mhm. importateur mën a indi suukar bu doy. Mhm. Eh, industrie bi aussi mën a produire. parce que ñu ngi jëm Ramadan. Ramadan baa ngi nii di ah. pointer à l'horizon tey dans quelques jour dañ dugg ci weeru koor weeru koor demande sucre bi day forte. sucre morceau bi dañ koy soxla sucre am donc. li gën mooy ñu fexe nu ñu xoolee taxes yi nga xam ne moom lañ teg ci suukar bi. pour cent dafa bari. droit de douane euh, ceeb bi. suspendre nañ ko. pourquoi mënuñu xoolaat encore droit de douane sucre bi. donc buñ ko defee nit ñi danañ mën a gis danañ mën a indi sucre bu doy. te sucre bi dana gën a yomb. su ñu gérer nag aussi filière boobu. parce que filière bi depuis cinquante ans. même façon lañ ko gérer. pour maanaam autosuffisance maanaam exclusivité monopole. à la compagnie sucrière. ak une protection boo xam ni. doy na waar léegi nag. loolu bu buñ ko ko bàyyee pendant cinquante ans mënu amul autosuffisance laaj nañu xoolaat nag loolu ndax. dañ ko war a xoolaat ba euh, convention bi ñu signé woon ñu xoolaat ko. mais su fekkee ba léegi yéen a ngi koy laaj. ba léegi ñu koy laaj mais ba léegi mënuñ ci wax mënuñ mënuñ mënuñ ci wax. Mm-hmm. ceeb bi nag moom. li muy fay bariwul douze pour cent douze virgule sept pour cent la. Mm-hmm. moom lay fay mm-hmm. loolu lañ dindi loolu moo indi li ñu baissé nii tey waaye yaakaar naa ni. ceeb bi buñ bëggee Moustapha Tall tey euh, tey buñ bu fekkente ni euh, yaa ngi koy wax léegi koor gi koor gi léegi mu ñëw. nit ñi dañ soxla meew. meew mi mm-hmm. dañ koy importer ba léegi. Mm-hmm. Euh, dinañ soxla yeneen ak yeneen ay denrées de base. yoo mm-hmm. xamante ne dañ koy importe yaa ngi wax sànq 80 pour cent ñoom ñooy ñoom ñooy euh, consommer euh, le riz ordinaire. parce que seen loxo jotul seen ginnaaw. bu ñu sañoon consommer di am lu am solo. loolu la ñu mën. kon est-ce que mun nañu continuer toujours rek ci. bu problème amee rek ñu génnee milliard dugal ko ci. lan lay lan mooy la la solution. Euh, structurelle solution structurelle et voilà. mooy ñu jël en charge la filière par exemple bi nga xam ne mooy ceeb. depuis fañ koy bayee ba ci importation mhm. gérer production locale bi ni koy gérer mooy bu ñu produit kii produit na produit bàyyi ceeb euh, padi bi mhm. société bi koy war a ko ñu décortiquer loo ko nga xam ne am nañu machine de dernière génération bu ko ci ay saab yu mucc ayib mhm. ceeb boobu dootoo ko xam ne importé su ko defee production locale bi da keneen keneen su defee boo boobu jaay ko société bi nga xam ne moom lañ mettre en place te loolu initiative boobu defoon nañ ko en 2010. waaw mais ñu saboté bu ñu ko saboté wuloon tey nag waxatuñ ko. ñan ko saboté. mais yi nga xam ni ay multinationales yi nga xam ni ak importateurs yi nga xam ni xamuñu luy ceeb. Mhm. li leen ci indi mooy importation. Mhm. ñoom ñu ngi ciy gagné ay tuuti tuuti. di perte tuuti ñoom pour ñoom. activité la bu baax arrangé wu leen mhm. loolu moo tax ñu yàq ko yaakaar ni bu ñu ko yàqee. peut-être du du ñu amaat du ñu amat leneen. te fekk. lii ñu am li ñuy def nii yaakaar na ni baax na. Mhm. mais baaxul parce que da ngay gagné di perte. booy perte da ngay perte comme un un richard. Mhm. mooy booy booy gagné da ngay gagné comme un pauvre. Mhm. benn mag waxoon na ko ni ceeb mooy activité boo xam ne booy perte. da ngay perte comme maanaam un richard. waaye booy booy gagné da ngay gagné comme un pauvre. nga loolu mënul continuer. booy à la au finish da mujj sa capital dem. la preuve xoolal ñu fi nekkoon bi ñuy soog a ak li fi nekk tey. nga xam ne ñu baree bari wàññi ko dañ ñu bari am nañ jafe-jafe dara waralu ko loolu filière bi moom la ñu organisé wul teguwul ci yoon te organisation bi moom mooy ñu autosuffisant d'abord mooy objectif bu ñuy wax autosuffisance ba léegi ñëwul autosuffisance déjà bu ñu autosuffisant woon dinañ assurer Euh, la consommation locale avec yéen sax après ngeen dem jaay. mais loolu la la cest à moo tax duñu ko def c'est-à-dire ki xam ne xamul lu dul ceeb ci importation. importation la xamul ceeb xamul ceeb ba ñu koy def quota. ñun boobu ñu ngi woon ci ceeb bi. xam nañu loolu moo tane. waaw et pourtant quota nga daan am bu ndaw. jën ko ci condition yi ñu la ko joxe. après bu bu jeexee ñu ferme bu ñëwaatee nga ñëw. kontaan la organisation parfaite. entre les de de l'État léegi nag. ñu libéraliser ko ni pëcc xaw baa ngi noonu. maanaa ba jàkka jàng noonu ku mën a noot. chinois bi ñëw autrichien bi ñëw asiatique bi. ak Europe ñëpp ku bëgg a indi ceeb indi tur ko ci marché bi loolu xam nga ne ànd suñu ceeb local bi nekk ci ceeb local bi nekk fii eh, du mën a jar du mën a jar parce que ceeb bi marché bi dañ ko inondé léegi nag au finish bi ñu coowee coow bu mujj ñu léegi daal au lieu que ñuy gérer affaire bi de cette manière laa ñu teg plateforme plateforme boo xam ni yow da ngay dem jëndi ceeb ci local ba soog a ñëw ñu jox la nga importé xam nga loolu c'est pas fiable boo bëggee ki nit ki liggéey mhm. da nga ko il faut nga jënd ci ceebu local bi. Mhm. li nga ciy jënd nag pour pourcentage boobu ci lañ lay may pourcentage boo war a importer. su ko defee suñu demee ba war a importer. bu nee war a importer. Mhm. ñu ni léegi Sénégal pour un million de tonnes la mooy seen consommation. produit nañ cinq cent mille tonnes. cinq cent mille tonnes bi des dañ koy importer. appel d'offre international lay doon. appel d'offre international nga foog kon multinational dinañu di ñu. positionner def keneen pour ñu xool ki gën a mooy di sax ñu signé ak société euh, kii réew moomu. su ko defee 500000 ba ñu ko def comme lu ñu def gerte gi gis nga ko de. gerte gi de. gerte gi chinois ñëw ne saax saax gerte gi amul organisation. samul organiser lu amul organisation baaxul. mooy rek mooy ceeb bi rek. bi nga ceeb bi dañ koy organiser. gerte gi dañ ko réorganiser. Mm-hmm. pour mën a am diwlin bu bu baax. Mm-hmm. bu yomb ñu mën aussi gis suñu bopp ci exportation. mais est-ce que lii lii ngay expliquer nii di ngeen togg ak état bi di waxtaan ak ñoom euh, ci lii nga wax ñi nga xamante ne solution la. non non duñu toog pour waxtaan. d'une manière générale malheureusement loolu tax d'ailleurs ñoo tax mu ñu proposé ñun. Mm-hmm. à ce que ñu def ay ay euh, des états généraux suñu organiser des états généraux mm-hmm. ñu ñëw dajee def s'il le faut benn conclave boo xam ne dañ fa def nangami fan mm-hmm. ñi nga xam secteur yëpp ñëw toog ñu waxtaan ah, xool naka la ñuy mën a organiser suñu économie mm-hmm. secteur par secteur su ko defee toll ko mais bu ñu ko deful bu ñu maîtriser wul économie on la merci de de de des étrangers yoo xam ne dañuy ñëw di profiter ci ci situation réew mi te bu ñu ko organiser da nga nga liggéey da ngay ñëw investir booy ñëwee dañ la teg fi nga dañ la wax fi nga war a investir nga investir fa. Mhm. parce que day am transparence Absolument. mais suñu bàyyee économie bi de cette manière nga xam ne informel mhm. du ñu du baax ci ñun du baax ci réew mi. Mhm. au finish dañuy mujj di am ay problème rek. muy lii nga xam ne moom la ñuy gérer nii. boo léegi ñu amaat leneen. mais xanaa état dafa gis boppam ci ci ci anarchie bi am wala. non état ah je ne parce que ah, ñoom fi lañ ko fekk fi la ñu fekk situation bi. xam nga bu ñu ko fekkee dañoo war a ñëw pour réformer ko. pour ko waaye ah nanguwuñ ko changer. te man a tax ma ne xanaa dafa gis boppam si anarchie bi. Ah, xam nga parce que ni ñu ciy gis seen bopp xanaa peut-être mooy. Euh, taxe droit de douane. waaw moom laa loolu indi. Ah. da nga ko ne mais loolu am na lu gën. mais après dañu koy delloowaat ak si ay. wàññi ay taxe gauche wàññi ay taxe droite. waaw nga defaat ay subventions. ak milliards xam nga mooy li ma wax noonu. Mhm. lii par exemple mën nañ am lu ko gën. Mhm. d' action yi baax na. ndax bu problème amee mu jul xaalis dimbale dina leen doole yi. Mhm. mais lee daa gën parce que lee dafa ëpp njëriñ. ndax dana permettre xale yi am am liggéey. ñoom une autosuffisance s'il le faut sax ñuy exporter. te bu ñu ko defee réussir ko ci filière boobu. Mhm. lu mel ni ceeb mën nañ ko def ci yeneen ak yeneen ak yeneen. te bu ñu ko réussir ci filière yi. mais jeex na Sénégal day avancé. Mhm. waaye bu ñu ko parce que ñu jógee naan sénégalais yi bëgguñu ceebu mbay bi mais sénégalais xëy na gisuñu ceebu mbay mi bu baax wala boog sax boog dañoo gisul qualité bi bu baax mais bañ defar bu baaxul duñ ko bëgg parce nit ki may ñu ko ceeb bi da koy jënd xaalisam booy jënd nag li nga bëgg ngay jënd boo ñëwee gis lu baax mhm. ak lu leneen lu baax la ngay jënd parce que mhm. la ko léegi nag loolu bu ñu ko defoon tey nit ki ñooy ñoom ñoom sax ñooy exiger wala ñooy demande ci mm. biir local bi muy jeex mm. muy manqué ñu koy wut. te bu ñu demee nag ba demande bi ëpp mm. euh, euh, kii bi offre bi. Mm-hmm. ah dañu yokk production bi bu ñu yokk production bi. autosuffisance la ñu am. Ah, ah, absolument waaw au finish bu autosuffisance. kan mooy Sénégal dana épargne. ñaata milliards yu ñuy importé par an pour du riz presque deux cent milliards. deux cent milliards dix ans ça fait combien. absolument deux milliards. Ah, donc xaalis bu ñu am rek day génnaat. vraiment. Mm-hmm. Euh, mbir la moo xam ne daal war nañu wax war nañ ko waxtaan. te mm-hmm. man bi ñu amee en 2015. Mm-hmm. bi mu wootee pour autosuffisance. waaw au palais dem na. participer na waaye waaye ñu ni léegi après dañu am euh, objectif objectif autosuffisance en 2017. Mm-hmm. te c'est en 2015 en deux ans nga bëgg a am autosuffisance ak ay paracas ak ay. investir xaalis ci ci vallée beeg def ay tracteur mais. xaalis d'accord baax na waaye du xaalis mooy doxal mbir mi mbir mi mm. xam-xam la mécanisme booy teg affaire bi man dox mm-hmm. mu am ay chaîne de valeur affaire bi fonctionnel ah. te buñ ko defoon man mm-hmm. wóor na ma ni man naa jël en mm-hmm. charge engagé wu ne buñ ko buñ ko démarré buñ buñ ko jëloon teg ko en place chaque année mën nañu évaluer au bout de cinq ans danañu am autosuffisance wala njeew

organiser kii bay am ci dara mais ñëppay bay waaw waaw mais ko deful kan mooy bay ah, ñu doon bay sax dañuy ñëw toog Dakar xale yi doomi baykat yaa ngi fii di def ay marchand bi parce que mbay mi gisuñ seen bopp mais bu ñu defoon ba mbay mi mm-hmm. organiser ko ba kii bay mën ci génn di ci am xaalis mm-hmm. ñëppay bay absence d' moom moom moo waral li moo waral yi bi moo waral li moo tax il faut ñu waxtaanee ko waaw état de mm-hmm. l' économie il faut ñu def man nag su ma sañoon président de la république jàmbaar la bëgg na am na am am na wërsëg am na wërsëg parce que aussi il faut le dire li mu réaliser yombul mhm. ay autopont ay ay ay autoroute à péage ay ay pont xoolal pont yi Sénégal absolument xoolal Gambie pont bi mhm. Farafeñe kenn xalaatu loon dañ ko mën mhm. réaliser réaliser na ko en un temps record ñu defati pont Rosso bi mu ngi nekk en cours pont Foundiougne Foundiougne xoolal autopont yi xoolal autoroute yi mais xoolal li mu réaliser bari na ñun ni pétrole beeg gaz bi aussi ah moom la tombeel te tombee war a ay gaaf kilifa aussi. Mm. day am wërsëg. Mm. kilifa bu amee wërsëg da nga koy nangu ni am na wërsëg. te lu mu lu mu visé lu mu visé objectif bu mu visé en général da koy atteindre. yàlla moo ko dimbalee nag ay réformes. c'est ça le problème parce que bàyyi situation bi rek. loo bari bari wërsëg bu situation defoo dara ci situation bi. ah day yi la nga defoon lépp yàqu. Mhm. te kenn yéenewu ko bu sañoon daal. li nga xam ne moom la teg réalisé ko. mu réussir nag autosuffisance réussir éco organiser économie. loolu moo tax ñu mën a am solution ci situation bi mais en attendant taxes yi nga xam ne da koy supprimer moom pour combien de la leen wax wala. Euh, taxes moom xam bon. pour 3 mois pour 2 ah, mois. xam naa ne c'est temporaire. ah mënul dem à mënul continuer mënul continuer c'est pour que 2 3 mois. xam naa le temps ñu passé koor geeg. waaw loolu nag xam nga ñu delluwaat flamme inflation bi. kenn xamul kañ lay taxaw kenn xamul kañ lay taxaw ñoo ngi guerre nga fële nga fële pétrole baa ngi yéeg nangam ah. donc vraiment man daal su ma sañoon. ñu gérer situation lu mel ni ay denrées de première nécessité. ñu gérer ko ba am une autosuffisance sur tous ces produits et c' possible. te meew sax mënoon nañ ko am fii xoolal tamit meew ma ñuy tuur fee xoolal soble yi ñu yàq fee la zone des Niayes Ah. ah vraiment man daal. ñu koy xanaa daal vraiment. président daal xam naa ni xam naa ni daal dafa waxul peut-être. wala wala déglu ñu war a déglu. parce que président aussi ñu ci bari. dañ koy bu ñu duñ ko wax li ñu a wax. ñu koy wax lu tooyal seen ceeb moom. Euh, li koy li li li catam nag. mooy gouverner ensemble. absolument maanaam on a gagné ensemble. on gouverne te moom lu xew dañ naan moom. moom lañ koy laaj ñeneen ñi moom dañu tiré. dañu tiré seen seen kii rek. ci amul ci benn responsabilité. Mm-hmm. léegi nag moom moo war a jël ay responsabilité mm-hmm. moom la ñu fal. moo war a xool ki muy muy mm-hmm. responsabilité ak aussi. li décision yi muy jël moom moo ko moo ko moo ko war a jël léegi ñoo ñëpp dañ koy jox ay xalaat mais bu ma war a xal ban décision war a war a jël absolument pour régler un problème mm-hmm. parce ñooñu bu bu affaire bi doxul ñoom seen yoon du ci ah, nekk ah. Ah. moom bu lëggee moom la ñu. dañuy toog di ko am. na solo euh, ñu xoolaat ñu réformer waat ni ñu ko waxee. Mhm. Euh, conseil général naka ko waxati sax. Euh, sur sur l' économie. éco états généraux les états généraux de l' économie. boobu am na solo. exactement nga xam ne secteur par secteur. secteur par secteur li nga xam ne nag man li tax ma wax loolu. mooy secteur bi ma ne. mooy filière denrée alimentaire. gis naa ne li ñu tardel li ñu plombé mooy ñàkk organisation. Mhm. suñu organisé woon tey mhm. am nañu autosuffisance bu yàgg te lii may wax nii du tey laa ko wax tey laa ko jëkk a wax. loolu loolu loolu am na solo mais surtout nag le marché aussi. le marché bu ñu demee dans le marché dañu gis commerçant yi euh, euh, vraiment amul régulation. amul lu neex waaye def. Ah, lu neex waaye jaayee ci marché bo lan moo waral loolu. mais mais parce que amul contrôle économique. dafa war a am. contrôle économique dafa war <laughs> xam nga boo demee ci réew yu développé yi. boo demee seen ministère du commerce moo ëpp ci ministère yëpp. parce que li muy yore. ci ay responsabilités dafay bari. Mm-hmm. économie bi ñoom ñoo koy yore. ministère du commerce tey bu ñu wax ay autosuffisance moom moo war a joxe un mécanisme bu permettre ñu mën a une dem am une autosuffisance le producteur mooy le le ministère de l'agriculture donc ministère de de du commerce moo yor liggéey bi moo yor commerce bi mm-hmm. moo yor commandé production bi mm-hmm. moo moo yor même les tarifs. Mm-hmm. Mm, lépp moo ko yor. arrêté bi génn na sànq. Mm-hmm. mais suba ba ngay dem marché ñu ne la du ma du ma ko def parce que dama amoon stock. Mm-hmm. foog ma jeexal ko. te aussi nee nañu aussi les grossistes duñu wàññi. xam nga pourquoi ñu bëgg exiger détaillants ñu wàññi. xam nga tey grossiste bi bu jëndee ceebam. waaw ci mu revenir ko. à mm. à deux cent à trois cent par exemple. c'est ça nga ñëw ni ko jaay ko deux cent soixante quinze. te remboursé ko différence ah, <laughs> ci contexte de libér ah, on est dans contexte de libéralisation lañ nekk loolu yëpp c'est des problèmes ah, loolu yëpp nag dañ ko war a xam sóoraale ko. absolument parce que comme ni ma la moo gën ñuy dem di leen jaay doole di nangu seen ay bagages. mais il faut régler les problèmes en amont. oui te te situation la boo xam ni day décourager aussi les acteurs. tey boo nekkee ci activité bu mel noonu. ñu nga am ci problème boo liggéey da booy gën doo tàgg kenn. donc waroon nañ mën wala ñu créer pénurie artificielle nëbb seen bagage. waaw wala duñu ko jaay à perte. mu ngoog <laughs> dëgg la <laughs> mu ngoog ba tax na uh-huh. kon daal li nga ne moo gën ci économie mm-hmm. mooy jéem a xool nu ngeen taxawalee tabaxe loo xam ni dana mën a jëm kanam pour ñëpp mais suñ ko deful mm. ay problème géej on espère bien que président dina leen déglu. Ah. Euh, toog waxtaan ak yéen pour vraiment trouver solution euh, ci euh, les denrées de base au mm. Sénégal yaakaar naa ne ñoom ñii yàgg ci lool ñoom Moustapha Tall ñii ku leen ku wax turam xam ne. Mm. yàgg na ci ci secteur bi yàgg na ci importation. Mm. donc ñoom am nañu solution yoo xamante ne solution pérenne. yoo xamante ne war nañ ko mën a wax président de la République muy déglu. ñi mu war a déglu moo gën bu ko defee Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk. ko defee jafe-jafe yi rek fi. waajal gars yi. Ah. kon kay Sénégal bu naat lañ bëgg nag. dëgg dëgg te nit ki bu waxal boppam. Ah. da ngay da nga koy xam. <laughs> mais nit ki waxalul boppam. réew mi lay waxal. waaw mën ko déglu dëgg la. yow ngay importateur di commerçant. ni nañ dooleel. Ah. mayum ceeb mi ci Sénégal. mën ko waxaloo sa bopp. man sama bopp gisuma ko. man li may gis mooy réew mi pour réew mi avancer. réew mi développé. loolu moom la ca la ma sa nekk ba léegi 2003 laa la bi ma dajeeg Ablaye loolu laa doon wax. 2003 mm. léegi léegi mat 20 mm. ans. absolument te ca changé wu ma de. xëy na ministre du commerce bii ñëw prochainement dina leen déglu ñu ngi lay gërëm bu baax. Moustapha Tall waaw man maa ngi lay gërëm di la sant. waaw ñu gërëm leen dem publicité gannaaw publicité ñu dikkaat euh, pour le journal. Mm.